lii tey bu amul woon euh, bu bu fekkoon tolloon ak moom aas da koy manipuler nu mu ko neex mais sans bi kii tey. doole la ko tey lii doole doole la ko bu bu mënul ko mais en tant que nit bi ñeme na de. mooy njaga mu ndaw. <laughs> yàq ngeen vidéo ba. waaye vidéo bu rafet ngeen yàq yéen nu ngeen di daw. yow bras droit yaa daw lii lépp. non yow bras droit dinañ seetaat sa dossier bala ci ginnaaw la moo tax ah, man daal sama yaay laay wër fi mu toll nii moom muy daw ci biir kër gi fi mu toll nii. yaa ay da dégg naa lépp yow taw bu baaxee lépp baax yal na yàlla guddal saw fan. sans Живи, живи, ари, ари. yow ak nii laa war a xam nag. taxawal boo fi daanoo dootoo ko defati de taxawal